sunu mbokk taalib bi nga xam ne moo toog fii di Serigne Kuli mbay ñëpp miin ko ci gox bi muy liggéey ci wàllu politique waaye nekk ci maire bi nga xam ne pas-pasam ak yitteem ci lexaar kenn ku ne xam na ko kon nu ngi ko ñaare mébét bi nga xam ne am na ko ci lexaar ci wàllu développement ak lépp loo xam ne day tax dëkk di avancé dem suñu borom defal ko ci lu fooxi njort sànq rek maa ngi wax ak moom ngir boo ko jox kàddu waaye wóor na sëriñ bi maanaam taalibe gi ne ci moom ay yitte gi nga xam ne sëriñ bi yitteel ko ak warmal ñaan warmal na ko kilifa yi mu ne moom comme kilifa yi jël nañu kàddu rek xalaatu cee teg ay kàddu waaye ñoo am lu ñuy feeñal rek mbooloo mi ngir ñu xam ki nga xam ne moo fi moo toog toog fii ànd na ñun ci liggéeyu Xidmatul Xadim dib taalib bi ndax garaat gi mu toll bu ko yëkkate woon amaana am na loo xam ne mënees na wax ne moom la waaye moom kat lépp da koo jël teg ko ci suuf jël Serigne Touba ak ci kaw barke Serigne tubaa loolu rek la la mbooloo mi mu nekk ab bi boo xam ne wax dëgg yàlla boolewul dara ak wax moom jëf moo ko gën lu ne kon ba tax na ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën a guddal fanam te wéral cëram lépp loo xam ne naan la ko ci daayira bi suñu borom defal ko lu foo ko kon bu ko defee jëwriñ lay jox kàddu gi mu jox ñi nga xam ne ñooy euh, ñoom la ñu yónnee matériel yi te lépp rek dañ koo joyal jëmee ko ci sëriñ bi kon bu ko defee ñu fàttali leen si Mourtala ak ñi nga xam ñoo fi ne ñoo xam ne depuis suba ak léegi euh, liñ fi war a jàng ci alxuraan daanaka lañ ci lim bi nga xam ne moom moom moom lañ ci bëggoon daanaka romb na ko. ndax wax dëgg yàlla bi nu waxee ne juróomi kaamil lañu bëgg jàng ci bis bi euh, ñaanal si ñi nga xam ne ñoom euh, lañ ci fàttaliku ak mboole si néew yi barsak yi nga xam ne ñoo fa ne suñu borom yërëm leen te tàbbal leen jàll firdawsi daanaka bi ñu waxee loolu juróomi kaamil yi boo xoolee suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Touba Maroc daanaka jàng nañ ci ñetti kaamil waa Touba Mauritanie danga ñëw jàng ci benn kaamil Serigne Mbour na mi toog it jaayante ci ñaari kaamil Serigne Cheikh mbay mi toog di suñu kilifa jaayante ci benn kaamil nga xam ne wax dëgg yàlla mbokk yi bu ñu fa dejee ci bëccëg kilifa yi nekk ci gox bi yëpp jàngal fi benn kaamil loolu boo ko boolee daanaka muy juróom-ñaari kaamil yu mat sëkk yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, jàngal nañ ko ci bés bi te ba nii ma wax ak yéen waa Touba Mauritanie nii nii ni ñu ko toogee nii ñoom noonu lañ ko toogee sol seen déguisement yi ndax déguisement yi dem na ba ba Mauritanie kon wax dëgg yàlla ñu ngi fa toog itam di fàttali ko liggéey bi boo gisee ki nga xam ne si Mourtala moo fi toog di liggéey bi da koy jàllee directement ñoom fa noonu lañ ko mën a jotee kon loolu moo tax liggéey bi demee ni mu demee ñu fàttali leen ne ñoo ngi ci ànd ak waa bitim réew fu nekk ba Touba Italie ba ba Brésil kon de maam dayre bi yemul fii rek ci gox bi génn na fii ndax ba Touba Kër Mbay Kër Baba Alima wax dëgg yàlla mbooloo mi ñëpp ànd nañ ci liggéey ba Touba Njaafuñ kon bu ñu nee dayre Xidmatul Xaddim moo ngi tënku ci 21 villages yoo xam ne ñoo nekk biir Lexaar li commencé Yindaan ba Njaafuñ waaye ba ci gox goxaan yi nga xam ne nekk sunu gannaaw ñëpp ànd nañu ci liggéey bi te liggéey bi kat incha allahu donc ci bëgg ay yokkute yoo xam ne si kanam la jëm ndax ñoo ngi waa siyaar boo xam ne danañ ko ànd ak waa gox bi siyaara ji Cheikh Mouhamadul Mountakha kon ni ko jóoruñ waxee rek bépp liggéey boo xam ne sumb nañ ko ci yoonu murit am na nañu yitte ak yéene joo xam ni suñu dërëm yi ak ñaar dërëm yi ak la ñuy liggéey di ko ñàkk danañ ko ci def ngir sëñ Tuubaa kon ni ko sëñ Basiru Mbay waxee kàddu yi rafet na lool ndax li ci wax it dara génn ko dara génnu ci dayri bi kon noo ngi suñu borom eh, dafa leen jàmm dafa leen tawféex kon bu ko defee rek dañuy daal di jox sëñ jëwrin mu mu jële kàddu yooyu ñoo xamal leen ni programme bi day day wéy day wéy bu sëriñ bi ñaanee day wéy ndax sëriñ mur jot na mi incha allah am na thème bu mu war a waxtaane tey jii lépp mu jëm ci yàqu-yàqu jamono ak ba yoon la ñu war a mën a aw ba mucc ca waaye soxna na koy càam bëgg fàllu am na benn marsiya bu mu defoon ci ñi nga xam ne ñoo génn àdduna te bokkoon ci daayira bi mooy may Serigne Thiambay moomu Serigne Malick waaye Baye Abdoulaye Dione mi nga xam ne moom la fàttali ko def na ci ay marché xam naa incha allah bu programme bi commencé dana ñëw leeral ko ci biir tànt bi sëriñ Cheikh Mbacke jon Touba ki nga xam ne moom lañ ci àndal xam naa mu ngi yoon bi dana indi nataalu bés bi ak mboole si mbokk taalib yi nga xam ñoo a barkeelu ci liggéey bi kon bu ko defee jëwriñ fa lay kàddu gi te jox la nga mottali liggéey bi incha allah. sëriñ Aliou waxtaan bi gën nañ bëri te lool yàlla suñu borom defal la ndam ak sutura barki sëriñ bi waaw ni ku jëwriñ waxee rek liñ ci bëgg a jottali mooy lu ndaw rek di mbégte. di am yokkute ci daara ji dafa am ay nataal yu ñu bëgg joxe nataal bu ñu bëgg a jox sëñ mal waajuram bi fi nekk Seydina Ali moom moo la koy jébbal mooy loo xamante ni day doon loo xamante ni waa daara ji ñoo ko fàggul ngir bokk koo jox amaat na fi beneen nataal boo xamante ni sëñ Mahmoud Akassa moo fànk moo fàggul benn nataal ak benn séddaata benn bi dañu bëggoon sëriñ sëriñ Moxtaar Thiaw jëwriñu waaw sëriñ Moxtaar Thiaw jëwriñu Xidmatul Xaadim bi nekk Tuuba Mbaraglu mooy fas yéene jox sëriñ Aliou Basam bi léegi soxna Ngoone ko laman moom lañ bëggoon mu joxe jigéen ñi jox ko sëriñ Yuusu kay sëriñ Murid Joon kon mbir mi noonu la tëddee ñoo xam ne daal lépp rek mooy sant sëriñ Tuubaa kon sëriñ Aliou Basam bi la ko jox waajur sëñ Malick ak kàddu la boo xamante ni waa daara ji ñoo ko ko jox waaw ñaar benn bi moom ko jox benn waa daara ji téye kon noonu daal lay tëddee sëñ Mamour nañ ko sax waaye lépp rek mooy mbégte daara bi kon sëñ Malick bisimilah. kon téye ko rek ñëpp gis ko. la waajuram bu góor jox ñu jox ko ko incha allah taxaw fii ñu jox la kon sëñ Malick a noonu ñaan yàlla yokk leeram tas ci barkeem ci barki sëriñam waa kër sëriñ Fallou la woon bi waxoon na ko ne bis bii taxoon nga jébbalu kon jébbalu mooy mu wér sëñ Basi moom sëñ Fallou moo nekkoon waaju moom sëriñam kon mu ngi noonu rek na ñëpp xam ne fii lañ jëm rek yàlla yeex fekk ñu ci liggéey sëriñ archive la yoo xam ne boo demee ci internet bi di nga ko fa fekk boo demee Google boo tàppee da nga ko fekk ndax jàllale nañ ko bu yàgg waaye li tax ñu jox ko ko rek ñu téye ko rek def ko xam ne archive la woon ci sëñ Malick nii danañ ànd ak ñu ci liggéey bi te woon na Serigne Touba maanaam pas-pas gi mu amoon ak yitte ak yéene ji mu joxoon Serigne bi moo taxoon ne jaral na maanaam ñoom jaral nañu lu ne bokk gi ñu def ko ba képp ba kenn ku ci nekk mu gën a xam liggéey bi kon bu ko defee euh, daa daa sëñ Malick mu noonu xam naa waa daay ba yitte benn boo xam ne dañ koy def archive bii nag ngeen mën koo téye bàyyi ko ci kër ga xam ne képp koo xam ne kii ñëw na ci kër gi même boo demoon ba ay mille neuf cent nangam wax dëgg yàlla boo ñëwee di nga xam ne kat kii suñu mag la wala suñu waajur la woon wala suñu rakk la woon wala suñu mag la woon waaye nii kat la doon doxee kon kon yoon wi rek la bismillah yal na yàlla fay leen ngën jaa fay yal na yàlla doxal dayra bi yal na yàlla barkeel seen liggéey yal na yàlla def boroom Tuuba mu teeru leen ci yërmandeem ñun ñépp ñu bokk ko kii daan na bàyyi xel ci moom dana ma wax ñaanal ma waaye ma ne ko yow mii yow itam danga ñaan de yenn saay ñu xëccoo ndax gis naa ci moom loo xam ne dafa yéeme waajuram la mais moo ma raw ci baatin moo ma raw ci yàlla te loolu yëpp yéenaa ko def foofu ci biir ak pas-pasam kon yàlla yàlla man daal sama xol bi fees na pour ma wax daal wax dëgg si yàlla waaw jërë mm-hmm. ku gis nii daaw moo nekkoon ci durus bi mbokk yi toogee ne noonu la toogee woon noonu jiite durus bi yàlla dogal mu wuti ko ren ba toog di jiite moom wax dëgg yàlla kon na ko ñëpp doole ay ñaan ci turu soxna yi yëpp rek incha allah bisimilah. ko ñaanal bu baax ci mbooloo mi la bo xam naa teewul sa waaye def na pas-pas ak pas jox na ko xasida boo xamante ne diwaan la wakaana ak kan suñu borom defal ko ndam defal ko sutura ci barki sëriñ bi kon ana soxna Ngoone kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Fall làmp mooy bunt yoon wi yàlla na suñu borom yokk leeram nañu xam ne lépp Cheikh la nañu delluwaat ci Cheikh Ibra dellu ci taalibe kër goo gis da ngay ci bunt bi Cheikh Ibrahima Fall mooy soxna ngóone mi li tax ñu sàq ko tamit moom moo demoon marché nduggi ji kon lu am solo la kon yàlla na leen jig ci barki Sëñ Tuubaa yàlla na Seera defal leen ndam ak sutura barki borom Touba kon jërë ngeen jëf waaw jërëjëf bi kon di amaat mbégte bu baax ci taxawaayu ngi jiital ci bi sunu kilifa yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo toog ci jotaay bi ñu Serigne Cheikh ngi nuyu baax di am ci ñoom loolu di rafetlu teewaay bi ndax nii la ko defee ren nii lañ ko defee ci at yu bare bari yu weesu bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw teew ci béréb bi loolu ak mbégte ak cant teg lañ ci maanaam di ñaan suñu borom yàggal leen te wéral leen ba ñëpp yéene bi ngeen am ci ko seen Tuubaa ngeen defe ko ni ngeen ko bëggee te ngeen ànd ko taalibe bi yëpp di siyaare suñu kilifa gi nga xam ne moo ne ci daara ji ñu suñu bàyyi Aliou bi baax tam mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci biir ahlul xidma waaw lii lu màgg la di lu rëy loo ne waaye nag fi noonu lool wax dëgg yàlla yëkkati kàddu gi sax dana xaw a diis waaye euh, du mën a ñàkk ñu jotal kàddu yoo xam ne ak cant laa ak ngërëm ndax ne ko waa am naa bi ni'mati rabbika fa haddis lii xéwal joo xam ne euh, teg ngeen ko sama loxo muy lool te di ko sant sëriñ bi ndax euh, dañuy jàpp ni jëfaluñu sëriñ Tuubaa sax lu mat ñu duñu defal lii waaye seen baax ak seen woyof rek ak seen bëgg ci sëriñ bi ak doxin gi ngeen koy doxe rek moo sabab yi yëpp ngeen di ko def waaye noonu ay taalibe lan yu xeebu yoo xam ne danoon na ci yoon bi rek di nab na bi doon dara nag lépp rek yéen la seen mbaax ak seen yéen rek la waaye ñu ngi ñaan sëriñ bi fay leen boppam defal leen tawfiq bu baax ba lii nga xam ne moom ngeen di def te yéen ci liggéey sëñ Tuubaa nga xam ne du doon gis tal wala mu tegu ci lenn suñu borom fay leen ngeen ngi fay ndax nag sëriñ bi ku mu narta du la liggéeyloo ñu ngeen di jëf li muy teg tekki rek mooy sëriñ bi daf leen nar kon yàlla sëriñ bi bu baax seen taxawaay yàgg ba li nga xam ne moom ngeen yéene ci ngeen def ci lu kawe seen jot barke sëriñ Tuubaa yi nag ni ñu ko waxee suñu kilifa yaa ngi fi muy suñuy mag ñoo xam ne ñun ci seen gannaaw lañ nekk ku ci mel ne signal yi muy topp suñu ateex bi topp ak yeneen eh, suñu mag yi nga bi ñooñu ñooy suñu mag ci béréb bi wax dëgg yàlla ñoom a jël ci seen gannaaw nga xam ne am nañ yéene rek ci liggéey bi waaye bu dus dara wala yëf yi ci seen loxo la nekk ñun dañoo nekk ci seen gannaaw rek doon sant di def ñu euh, nag kàddu yi moom kàddu cant la rek waaw xëy na jaar na ci suñu loxo nii waaye ñoom ngeen ko jox. ndax ñoom su ñooy suñu kilifa biir ak biti ñun buñ teewee ñoom ñu teew ñun ab dongo la rek ci seen biir ñu doon suñu kilifa doon suñu kon ñu ngi baax ñoom itam suñu borom ñaar day def teewee leen nga xam ne itam moo tax ñu daje fa muy wéyjur xam ne moom moo sabab lépp suñu borom yeesal ñoom na ci kawam tàbbal ko jël na sa das ak boo ne si néewi jul yëpp jul bu njëkk wàcc ba ci jul bu mujjee wàcc yàlla na suñu borom wàcc yéen ci seen kaw ndax lépp rek moom ma ngi koy wax bu yàgg rek lii eh, lii doonoon suñu yitte rek mooy ñu def ko ak seen Sëñ Tuubaa fekk moom mu toog waaye faalu ni maa yurit suñu borom moom mooy defe nañ ko soobee waaye bu fekkee ne jëmm yi teew nañ mu suñu bàyyi bi toog moom bàyyi moo ñu nekk fi day mel ne moom bawu fi ak suñu bàyyi yéen ci dëkk bi yëpp rek bu leen di gis rek day mel ni moom mi ngi ci béréb bi ndax taxawaay ba mu taxawoon ñoom taxawaay boobu rek la ñuy taxaw kon ñoom it ñu ngi leen di ñaanal baax suñu borom yàggal leen fi leen bu baax ba lii nga xam ne yéene nañ ko ci njaboot gi ñu dund ba fekkee ba barki xasaay seen tubaay mu mel ni sant nañ daal cant biir ak bu biti boo xam ne ak nag tàmbali yoo xam ne lu li ma mën a wax ci ñoom mooy ak sant seen tubaay ni ko Cheikh Basirou waxee rek ndax jëmm la ñoo xam ne leen di ku ne doo làcce luñ doon ñoom ñii ñu kenn ko ci ne koo ci gis rek doo làcce lan murit moom foofu rek lay nekk fekkee jëmm ji doon na wax ne man ab murit laa di bëgg dund seen tubaay ba noppi ñuy ñuy lam-lami moom lu mu doon nga xam ne boo ko gisee du du am menn mandarga muy wane ne kii taalibe Sëriñ Tuubaa la soo waa jëmm jooju it war naa taxaw seetlu ci boppam ba xam moom ni muy doxee noonu la sëriñ bi bëggee wala bëggeewu ko kon mbir mi faaw mu def jeexital ci jëmm yi ci biti donte dañuy wax ne baatin bi la suñu borom soxla waaye xol bi li ci nekk te mu doon dëgg ci jëmm ji faaw mu def jeexital ci biti loolu mënta ñàkk te ñoom ci foofu yi rek lañ nekk suñ maa yi nag Euh, li may wax ci moom mooy li seen naa yi wax ci moom mooy juróom yi wax ko ci moom rek ndax moom moo nu gën a mat seede ci moom moom mooy juróom yi te li mu fi seede ñun ñëpp dégg nañ ko muy ab bi pire ku bëgg seen tubaab di ko dund waxtu nekk lu seen naa yi waxee boo xoolee fatu bi ni mbokki tali bi toggee ci durus bi nii la toggee woon fii ni ki heure bi daal loolu ñu war cee jàngee lu bëri ni rek moom foofu mu jaar foofu rek la ñuy jaar ndax almawtu baabun daaxiluha kullu naas buntu la boo xam ne euh, ñun ñëpp dañ fa dugg te man la ñëwoon bi sayfi nag matul rëy bi tafarraqatil asbaab fan moo du waxi ak dee moom gen rek lay doon yàlla mën naa dogal nag kii deewee nii kii deewee nii kii deewee nii waaye loolu lépp ak dee rek lay tekki bu fekkee te ñun ñii ñëpp foofu yi la ñu mujj kon waaj ko rek mooy am solo waaj ko ba nu mën a am seede yi nga xam ne wajur yu seede na ko ci gannaaw loolu mooy li ci am solo uh, naa dal ci moom ndax wajur mi ko jur moo seede kàddu yooyu ci moom bu doon keneen waxe ko ci àll ba mës na ko jàppee leen wala yu mel na waaye wajur wi ko jur moo tax seede ci ak mbaax ak bëgg sëñ Tuubaa ak jaamu yàlla bi mu nekkee woon kon loolu xel mën naa dal ci moom baax a baax ñun ñëpp nag ñu jéem a fexe taxaw foofa ngir mën a am seede yooyu ba léegi kon sant nañu baax ba gën nañ mbokk yi jërëjëf waaw jërëjëf sëriñ bi kàddu yi am na solo lool mënuloon ñàkk kon sëñ Moxtaar caw bisimilah mën ngaa ñëw joxe décoration bi ñu jóg décoré suñu jëwriñ di Seydina Aline xam naa sajaada bi dafa ànd ak ay jumtukaay yu bëree bëri bëri waaye sajaada bi rek moo jot a ñëw kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te Seydina Aline mën nañu wax ne képp koo xamante ne yaa ngi tàbbi ci daara ji moom moo la dugal moom mooy jëwriñu programme bi kon décoration bi lu war la ab soññee la ci julli bu ñu yëkkatee sajaada jox la loolu mooy ab soññee kon murit tamit photo bi mooy gën a delluwaat ci Cheikh Ibra yi biñ la décoré mooy gën a delluwaat ci xasaayit yi kon loolu du hasard kon sëñ Moxtaar bismillah kon sëñ Moxtaar moom mooy jóor ñu Touba Ogo yàlla ko suñu borom defal jàmm mu koy jox Seydina Alim décoration bi nga xamante ne ni ma ko waxee jàmbar la ci waar wi jóorin programme kenn defu ko moo ko def boppam ndax wàllu technologie du ñëpp ku mën moom xarañ bu mu ci xarañ ak ndimbal bi mu suñu borom dimbal moo tax mu volontaire yor jëwriñu programme bi kon yàlla ko yàlla defal jàmm ak sutura ba sijaada bi mu ci ñaan ay soxla yu faju barki sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf barkib Seex Xaadim na ko naan jàkkar yi ci moom pas-pas gu ay yitte yoo xam ne waaye ñoo ngi ñaan suñu borom gën a guddal faram te wéral ko ba liggéey bi nga xam ne jox nga koy doxal ba tubaab nga lool suñu mbokk yi lépp bëgg nga bëgg nga mu ne dëgg yàlla li nga xam ne Serigne Mamadou Tine Anta def na ko muy ci ay jumtukaay mbokk taalibe yi mu boole ci suñu jëmm yu xew li nga xam ne moom la jox muy siyaare jullikaay moom de gën na noo gën na noo jàjji ndax lépp loo xam ne mbokk taalibe yëkkatan bi la ko jox na la leer ne loolu boo ko seetloo si biir ak soñña la te bëgg nit nga gën a góorgóorlu léeg-léeg noo ngi ñaan ci Serigne Touba suñ maam wala moom suñu borom gën a yokk xéwalam yokk taw fi xam yokk wéroon barke Seexul Xadiim lii moom def na ci na ko ab ab ab ci ndigg li fu si ci liggéeyu ndax moom rek moom moo yëti ji biir beeg guddeeg bëccëg ak lu mën doon daal lu baax baax baax baax na lool waaye sax ci keppaaru Serigne Touba.